question parce que yaa ngi mélange pédale yi. mais yow mélange pédale booy la. question bi ma la posé. non dafa dafa nag dafa nag de. mais da ngay nangu. ja non non dafa nag polémique wu dama ni. maa la jox parole. yow yaa ma jox parole mais. waxal lu la neex maa la jox parole. voilà voilà voilà man dama jàpp ni. jaxase wu ma dara dama ni. non man je ne vous reconnais plus mais franchement. yaa xam. dama n'a pas de souci je peux accepter. yéen la provocation de non déglu ma yaa Moussa. yaa Moussa yaa Moussa est-ce que dama la ko jox parole yaa Moussa. jox ma micro. non non yow waxal ko waxal waxal waxal bon waxal. deuxième question donc yow da ngay wax ba nga jël micro bi kii parle tout le micro kii parle tout le micro mais yow yaa ma manqué respect nee na ma dama mélanger les pédales yow sa xol yaa ngi bëgg a baax sa xol baa ngi baax ndax da ngaa dee ndax si ki nga àndal. xaw naa koo rey waxal ngay wax. merci beaucoup. di ngeen dee rek li ma ci naqari. la deuxième question bi ñu ñëw par rapport ak li nga xamante ni moom mooy. yaa ngi bëgg a dee coalition bi nga bokk benn bokk yaakaar. yàlla rek mu mën a yëngal doomu aadama tuuti na pour yëngatu nga de waxal li ngay wax. du maag yow du maag yow du maag yow. du maag yow yow doo candidat du maag yow. da nga wax ci seen kàddu bi. yow Moussa waxal li ngay wax. mais bu ngeen ma dégloo rek man dinaa wax. allez allez allez maître sa sa sa biir. ki la xooxataw xam nga ko. kii xooxatale ci réew mi xam nañ ko du man. coalition benn bokk yaakaar bu dee moom nga bokk ba tey ndax candidat bi ñu tànn lu tax jàppoon ni comme sa compagnon ak président de la République comme nee na moom doonatul candidat mënoon doon xaar mu gànn candidat nga soutenir candidat lu tax personnellement nga bëgg décider doon candidat mais sa biir kàddu exclure ni mën nga dem ba ci bi bu dee sa candidature antu nga am koo jàppee ki nga a jàppale kan la a Eh, waaw xam nga ne li jarul coow man dama lay bàyyi nga posé lu la neex waaye du man may kenn muy def conférence ci kaw conférence bi xam nga ñàkk ma fay kenn du ma répondre par procuration ku nekk ca prison ba wala nga nekk sa kër mënoo génn kenn du la nekkal fii pour dama créer problème <laughs> ñàkkuma fayda doon ma ñàkk fayda da ngay posé question loolu laaj daa toon waaye bu def conférence naan kii mbir laa pédale yan yan pédale laa laa mélangé xanaa kay loolu ma loolu mooy provocation kon man mi la dama lay tontu ci bu njëkk bi ba pare nga waxaat ba ñu ma la jox parole yaa sax maa ngi la bàyyi ma tontu la ci bu njëkk bi jox la nga ñëw ci deuxième question bi wala nga bëgg ma jaay àddina provoqué man ñu ne El Hadj Diouf wu na jàppante na ak journaliste lool loolu ngeen wu ñeen ñenn ñi ngeen ko am su ma wax du neex ndax dafa li tax moom mu am problème ak man dafa ne ñaari justice juge bi ñaari vitesse am ni ma fu ñu waxtaanee ñoom dañ koy waxtaanee bëgg ñuy imposer xalaatam ma ne ko sa yaa xayri maag kii di waxtaanee loolu ndax gisu ñaari justice moo tax saa yi bëgg a dee sa waay gi nañu sonn ak yow gi mélangé ay pédal yan pédal laay mélangé nit da ngay honnête <laughs> allahu akbar ku am leen looy laaj maa ngi lay déglu